waaw tey jii def nañu CRD bi nga xam ni moo ñuy permettre ñu préparer euh, appel euh, bii di ñëw au mois de mars euh, ca comité d'organisation bi ànd ci ak autorité territoriale yi nga xam ni ñoo nekk ci commune yi mu concerné ñëw auprès des service techniques pour que disposition matuwaay yi ñu war a jël yëpp ñu jël ko déglu nañ leen nag ñoom ñu wax li ñu soxla accompagnement bi ñu bëgg état indil leen ko apporté nañu ay réponses waaye indi nañu ay réponses yu concrete mooy que lépp lu nga xam ni matuwaay la bu ñu war a jël pour assurer sécurité pour euh, que santé bi également ñu am couverture bu baax euh, pour que tali yi mën a mën a mën a mën a libre mën a jaar yoon ba oto yi mën a accéder pour que euh, cité yi nga xam ni fala la événement bi di amee ñu mën ko sellal setal ko disposition yooyu yëpp en relation avec nos services jël nañ ko euh, pour que ndox am mais également pour que courant bi bañ a sooxe donc daal euh, li ñu mën a wax mooy que pour l'instant ñu ngi ci dynamique bu am solo li ci des nag euh, danañ ko mottali fii ñuy egg ca bés ba incha allah. li gouverneur wax lu ñu mën a seede la si mesure urgente yi lié ak aux questions sécuritaires maanaam si wàllu kaaraange ci wàllu ndox wàllu. dem ak dikk ci wàllu également santé wàllu hygiène wàllu aménagement dëkkuwaay bi ak ak set gi vraiment li mu wax li si ëpp loolu dañ koy dëggal te di ko ko confirmer waaye ngeen may ma rek ma tànn ci point yi nga xamante ne jàpp nañu ne moo ñu nara a posé problème ñu fàttali ko autorités yi mooy question wu assainissement bu Cambérène Ngor Yoff maa ngi wax ci kanamu maire yi ñu war ko dëggal te te ñu dëggal ko itam ne question assainissement bi dafay posé problème bëri na ay zone yoo xam ne canaux yu ñu doon utiliser pour def ko euh, évacuation eau pluviale dañu dem ba koy utiliser léegi pour évacuation eau usée ce qui est inadmissible loolu moom dañ koy wax kon ñu ngi demandé ONAS mu jël responsabilité par rapport a ça par rapport à avenue Sénégal Saroula au niveau de Yoff daanañ seetlu at yu bëri ñu koy jàmbat le mu ndox bi ndox bi fay ñu ngi may wax ne ma vingt ans bu far na fa toll ñu koy jàmbat ndox bi taaj dëkk bu mel ni Yoff set gi fa war a am ak pureté bi maam li moom la sallallahu alayhi wasallam woote rafetlu ñu loolu waaye nag ñu wax rek te yàlla tax am nay avancer gàmm gi passé sous la houlette du sous-préfet euh, ONAS def na fa liggéey boo am solo wax nañu ne investissement bi 400 millions waaye dañuy attirer seen na nekk investissement bu définitif rek lekk ko définitivement loolu mooy suñu wax mobilité bi maanaam dem ak dikk bi Cambérène ñëpp ko seetlu Cambérène moom du question wu Cambérène waaye ñëpp ñuy emprunté ngoon gi wala suba si bu ñuy xëy jëm gàddaay jëm Malika Géejawaay zone boobu yëpp seetlu na nañu ne foofu problème la boo fa jaaree six heures kenn du mën a jàll waaye nag jox nañu assurance lu ñu yàggoon di xeex dans le cadre du comité que ne euh, balaa appel bi daañ ko ubbi ah ñu ngi leen di ñaan kaddu googu ñu yëkkati fii nañ ko dëggal parce que bu amul rek dina poser d'énormes problèmes dina poser ay problème mobilité ci ci euh, euh, zone boobu ñuy wax itam ci question itam boo xam ne soxal nañu trop question wér-gu-yaram objectif bi ñu am ñun si cadre appel bi mooy fexe ba Yoff Cambérène Ngor ak dëkk yi parcelle bénéficier si euh, vitrine appel bi mooy fexe ba euh, centre de santé après santé yi concerné yi concerné par localité yi Cambérène Ngor Yoff ñu fexe ba relever seeni plateau médicaux pour ñun c'est extrêmement important kon ñu ngi demandé centre de santé Philippe Maguilen Senghor poste de santé centre de santé bu Cambérène poste de santé bu Seydina Mandione bu Yoff poste de santé bu Ngor également que autorité sanitaire yi jàppale ñu relevé ko maanaam ay dotation en matière d'unité de radiologie dotation en matière d'ambulance médicalisée également en matière de scanner loolu moo doon demande bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax di nag ñaan maire yu bees yi ni ñu taxawee nii yal na leen yàlla taxawu taxawaay bu mel nii ci CRD fàttaliku ma ma ko mën a ma tàmbalee CRD léegi loolu di mbébét ak yéene bu ñu am ñoom yàlla na si yàlla jàppale. def nañu séance de travail ak ak commune ñu ngi waajal ak Yoff ak Ngor pour mën a tënk wan ne appel bi ñoom la dañuy ànd ak ñoom rek pour jàppale leen seen seen seen localité ñoom itam ñu wane seen disponibilité pour encadrer le comité par par la dotation de de moyens et un appui également conséquent ñu leen si gërëm di leen si sant di leen ñaanal ndam incha allah ñuy gërëm itam